conférence de presse bi communauté baie de moko communauté baie de a beaucoup boo Moi, mairie Moi, Belair moy mairie Dalifort Foray moy mairie Thiaroye-sur-Mer mooy Diamaguène moi, Mbao mairie Mbao ñi dëkk un dañu am projet bu dépollution de la baie de projet Bobu. population yi dëkk Hann ñoko ko laaj gouvernement parce que tefes gi ñu dandal ku ko gis di nga xam ni napp mënatu fi nekk di nga xam ni sangu géej mënatu fi nekk di nga xam ni toog am bànneex ci booru géej mënatu fi nekk te loolu lu mu andi mooy ay feebar am na ay gëstu yu wax ni képp ku dëkk yaraax di sangu ci tefes gi mën nga am ñetti xeetu feebar mën nga am feebaru wokkatu mën nga am feebaru biir buy daw mën nga am feebaru aussi sëqët asma bi bari na fi donc bi nit ñi gisee loolu am na si la waa dëkk bi jóg wax gouvernement bi dañu bëgg nga defar tefesu Yaraax loolu nag yëngatu bi si njëkk ñu ngi ko amel ci année 87 88 diggante 87 ak 88 waa Yaraax ñoo yëngal wax ni li ñu commencé gis jaaxal nañ leen parce que nit jën amé woon si géej gi amatu fi ni nga doon sangoo géej génn mënatoo ko parce que boo sangoo sa yaram day niin bala ngay yegg ci géej gi xottu butéel dina bënn sa tànk wala pont jam la ñu xam ni loolu waratul mën a nekk si la waa dëkk bi jóg 87 88 wax ni lii doy na waar ensuite ba 2002 87 ba 2002 fukki at ak juróom la fukki at ak juróom yu nga xam ni waa dëkk bi ñu ngi jàmbat si la gouvernement Sénégal soog a jóg ni danaa saafara tefesu yaraax bee bi yàqu na usine yi bi dugal nañ ko si biir géej gi Euh, depuis ñun 6 euh, ans ñun ñu ngi ci BDAR bi chaque fois ñu né tel mois lay commencé commencé wul légui nak euh, li mbacké wax moy dëgg gouvernement bi nañ wax bee bi kañ lay commencé ou bien du commencé ñu xam ko ñun dañoo réunion ONAS ba son lu ne def nañu ko mais dara bu ñu waxee ne day commencé mois bi mois bi ñëw ñu ne dañ ko repousser beneen mois. gouvernement Sénégal jël na sañ-sañ ak pas-pas pour defar tefesu yara loolu kenn natable wu ko ñiy jàppale Sénégal muy bailleur de fonds yi muy Union européenne muy France parce que France dafa jël kuréel gu tudd agence française de développement ñu jël lu tollok 50 millions d'euros mu tollok xaalis bu bare bari Union européenne aussi jël à travers Banque européenne de développement jël fukki milliards ak ñaar jagaleel ko tefesu yara nous Bobo ñu signé en 2009 c'est-à-dire depuis le conseil interministériel 2002 En janvier 2009 nous la signé mais entre 2009 et 2019 bi fukki at ak ñeent la fukki at ak La population baie de Hann Yaraax Caaroy Mbaaw ñu ngi xaar un projet démarré xaar bi dafay yàgg xamuñu lan moo ko tardeel li ko tardeel war na fi

ci de façon de nous koy def festival bi nous tous les ans sur la protection de l'environnement wax nañ ci ñu ngi préparé déwén ci mois de janvier show parce qu'il faut parler aussi à la population Nous sommes les les les premiers concernés. président de la république nous, ngi la parce que le programme de consolidation des zones côtières c'est un projet phare de la phase 2 du PSE kon wane na ne sincèrement parler ce projet de développement, daa dafa war dem yeneen projet structurant yi koy accompagner mën a ñëw. volonté bi président de la république def pour defar terre, pour defar BRT defar yeneen projet volonté boobu la wane ci defar bayu Yaraax volonté boobu nag moom moo tegul tànk teguwul parce que fii ñu toll bi union européenne xaaree xaar bu yàgg fukki at ñi joxe xaalis union européenne ñu ngi tudd banque européenne d' investissement. dañu nangu seen fukki milliards ak ñaar dem moom beneen dëkk parce que xaalis baa ngi doon xaar fukki at fukki at xaalis tëdd di ko xaar pour projet bu tàmbali jaaduwul ñu jël seen xaalis dem si le directeur ONAS ànd ak gouvernement bi demaat Hollande waat xaalis bu toll fukki milliards ak ñett loolu ñu ngi ko signé le 14 septembre 2018 ministre des finances baax Ba ko bërki démb ñu gis ministre finance finances Amadou Hott signé waat 79 milliards donc fa gouvernement bi nekkoon ma nga bailleur de fonds yi andi woon xaalis bi fa ñu nekkoon ña nga fa mais lan moo tax projet bi mënta démarrer ba léegi loolu moo ñu énervé loolu moo ñu jaaxal est-ce que yeneen projet yi ñoo gën a prioritaire ñu bopp